الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنا مجموع وما به التحق وقل من بكثره نطق ونون ما سني والملحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتاء وألف قد جمع يكثر في الجر وفي النصب معا kii bi moo ñu ànd kaza olaatu walla din man qad joñel kaafiraatin fii saa aydan muzakkari salim dañ koy fataa fu mën a dikki ja alquran noonu la gis nañ ci kasara waaye bëriwut moom la mu lay wax mu ne woon nuuna majmuuhen hmm. daal nuun ak lu ñu jamool hmm. wama ak lu xam ne na mu bii ci lu ñu jamool hmm. foofu nañ ko bata jamool mu annas si saalim mbaa lu ñu yéeg mu annas si saalim lii foom dañ koy fata wala yëri dikkut moom nuun ak jamool muzakkari saalim fil qur'aani ci alquran illa kadhalika ndare naka noonu alquran boo koy jàng ba mu daj baat boo ca gis muy jamal muzakkari saalim mbaa muy lu yéegal jamal saalim baat booba dañ ko rafa defal ko waaw wala dañ defal ko yaa nun googa di ànd ak xarful i'raab fata rek lañ koy maase allazina hum bi qulubihim xaashi'uuna muriduuna lu bari la foota nanga fata mm-hmm. nuun ak majmuu'an nuun ak lu ñu jamhool mooy mm-hmm. nuunu jamhool muzakkari saalim mm-hmm. wama ak lu xam ne iltahaqa yéeg na mu bi ci lu ñu jamhool waqal la néew na man nataqa ku tudd na mu bi kasri yi ci kasraam bandal yaa yi ci gannaaw yaa noonu nag jamono muzakkari saalim mm-hmm. am na ci waxkati arab yi mm-hmm. ñu xam ne su àndeeg yaa mm-hmm. duñu ko fataat dañ koy kasra te loolu nag bokk rek li gën a bañ ni ngi la waykat ba wax ne araf naa jaafaran wa bani abihi wa ankar naa saanifa aaxarini araf naa xam nañu jaafaran jaafar wa bani abihi ak doomi waan karna fakk nañu saani mm-hmm. fa ay jàmbur axarin ñe de axarin naat la ci saani mm-hmm. xam nga dañ koo nasab mm-hmm. yaa lañ koo nasabee saani bi dafa kasra nuun gi ndeg ànd gi yaa mu ne axarin loolu mooy saahid bi wa xurrija xiyaaseef na alayhi ci loolu qawluhu xam nuñ si xiyaas la waykat ba wax ne wa maada yabtaxi suaraau minni wa qad jawastu xaddal arbaini wa masaana lan yabtaxi lay sàkku assuara waykat yi min nii ci man wa qad jawastu te mbir moom jéggi naa xaddal arbaini dayoom ñeent fukki at yoo xam ne arbaini bi yaa mooy mandargam jar mi kasra di biir nuun mm-hmm. dafa ñëw ci loxam ñi nga xam ne ñun mm-hmm. ak jaman muzakkari salim mm-hmm. dañ koy kasra ba'dal yaa xam ne wa nuun a majmuu'in daal nuun ak lu ñu jamoo wa ma ak lu xam ne iltahaqa yéeg na mu bii ci majmoo faftax nañ koy fata baat buy jaman muzakkari salim wala muy lu ñuy jama muzakkari saalim mm-hmm. noonu ngay topp xarafu i'raabam mm-hmm. fata lañ koy def mm-hmm. moo xam dañ ko rafa xarful i'raab bi di waaw wala ñu nasab ko wala ñu jar ko xarful i'raab bi di yaa yëpp a ci yem waqala néew na nag man na taxa ku tudd na bi kasra yi ci kasra nuun googu gis nañ nag ci waxi arab noonu jamal muzakkari saalim bu àndeeg yaa ñi ko kasra te loolu tax nag taxul muy li gën a bëri wa nuunu ma nuun ak li nga xam ne mm-hmm. sunniya tasniya lees na ko mm-hmm. wal mulhaqi ak lu ñu héegal mm-hmm. bihi ci musanna istaamaloohu jëfandikoo nañu ko bi ansi zaaka ci safaanu nuun ak jamal muzakkari saalim bu dee nuunul musanna moom dafa safaanoo ak nuun ak jamal muzakkari saalim nuunul musanna kasra mooy ci bëri xam na ñëw nag bu fekkee dafa ànd ak yaa mm-hmm. dañ koy fata mm-hmm. moo tax ne fa kasruhu mm-hmm. nga ne saydaani saydayni wa faduhu fata maria lugatun lugat aw nit la xam na ñëw nun bu ànd ak yaa ñoom fata dañ koy maate ngi ala ahwadiyayna taqallat ashiyatan fama hiya illa lamhatun wa taxibu istaqallat temmu na mu ala awasi yey na xëy ci ñaari mbaggam la xasiyatan mm-hmm. ci ngoon mm-hmm. fama hiya déen moom mm-hmm. illa lam xatun dara muy kem bi gendeku ba taxibu mu faddu ahwasi yey na yaa ngi fatal nuun bi nunul musanna la dafa ànd ak yaa mi nga xam ne mooy xarfu mooy lamatu jëri waqila la yuxtasu biliya xam nañu ne déedéet fata bi ñuy fata nuunul musanna ñoom de seen luxa jagleeluñ ko nuun gi ànd ak yaa nuun bi mën nay nekk waaqia ba'dal alifi ñu fata ko léegi arifu min al jiida wal aynana wa man xara'ina asba damya arifu danaa xam min ha ci moom al jiida loos wala ay naan ak ñaari bët. Mm-hmm. wa man ak ñaari pexe bakkan. Mm-hmm. asbaha yooyu nit nañu. Mm-hmm. asabiyaana mën naa am nit la. xam nga ay naana. musanna bi alif lahaan la. waaye teewul nuun nag dañ koo fata. moo tax ne wa maa nuun ak li nga sunniya tasniya lees na ko nuunul musanna. wal mulhaqi ak lu ñu yéegal bii sunniya. wala noonu lu yéegal ci musanna istaamaluhu jëfandikoo nañu ko bien si saaka ci safaanu loolu mm-hmm. dafa safaanu mu nag jama muzakkari saalim moom mm-hmm. de kasaraaje bëri waaye mm-hmm. fata bëri aussi fan tamit na nga xeew lil farxi ci tàggale bay na nuu ne ni nga xeew ci loolu comme ñaari noonu yi bokkuñ dañu lu leen xaajal lii mooy i'raabul musanna léegi bokk na ci ñi i'raab da mhm. ci mooy cosaan ci lisim yi mhm. ñaari mbir mhm. jamul mu annasi salim suñu koy nasab kasra lañ koy nasabe nekkul ne nasab ci kasra la cosaano nekkul ne itam alamatu nas bi kasra moo ci gën a jege fata te yaa gën a jege fata waaye bor boobu rek nag mm-hmm. ci la mooy cosaan mm-hmm. suñu demee bay rafaa mm-hmm. cam cosaan la ñuy ànd ñu rafaayee lam suñu demee bay jar cosaan la ñuy ànd ñu jaree kasra ñoom waa ne salim la moom lay wax ne wama lu xam ne xat jumia jamoo lees na ko bita in ci taa wa alifin ak lii bépp jamono masida say ni mm-hmm. bépp jamoo boo xam ne bi nga ko bëggee mm-hmm. yaa ngi ko defee ci dolli liif ak taa mm-hmm. te loolu ci waxi arab bépp ba bépp baat bu taa mujj rek nangu na ko sifatun nga ne sifatun tilmisatun nga ne tilmisatun kaatibatun nga ne kaatibatun mhm. ba di rek ñoo ci génn mhm. nga fekk seeni mufradaat hamta mhm. te kenn du jëlal jamo salaama bi muy baatu mar'a nisaa bi ismul jame la ñuy jëfandikoo ak lu mel ni saatu siyaah bi jamoo taksir lañuy la ñuy jëfandikoo ak lu mel ni umma umam bi jamo taksir lañuy ñuy jëfandikoo ak lu mel ni safatun sifaah ki jamo taksir bi lañuy ñuy jëfandikoo naka noonu lisim soo amee alif tanis ni ki uula uxra sikra man nga ci dajoon waa ne salim alif mooy soppeeku yaa ah sikra yaat uula yaat uxra yaat xubla yaat naka dirham boo ko tafqiree muy durayhim da nga wax durayhimaat naka noonu lisim boo amee alif tanis il mamduuda xam ne xam sa moo ji mujj comme sahraw mu naa sahrawaat xamraw nga ne xamrawaat naka noonu li fim kuy alami jigéen comme Zaynab ak Hind war nga ci mën ne Salim ak Daxdu ak jumlu nga naan Zaynabaat Hindaat Daxdaat jumlaat naka noonu itam ismul faayil bi nga xam lu amul xel moo ki saafin mooy fasu xongal maa saafinaat wala raaxin mooy gëlëm guy bëmbu mën naa raaxiyaat wala saaxin mooy luy meem nga ne saaxiyaat barab yii nag ci mm-hmm. la jaman ba na salim xiyaasu xanaa mm-hmm. ak masdaram lu ëpp sulaasi ni ki taqdir nga ne taqdiraat mm-hmm. inhiraaf nga ne inhiraafaat su ko moyee nag bëriwul lu muy am su ko moyee nag na salim na fa mu nga ko fekk wala fa nga ko waaye xas na doon demoon waa nasi salim mm-hmm. ñu ngi koy nasabee kasra mm-hmm. ñu ngi koy jaree itam kasra mm-hmm. fekk jaree gi kasra cosaan la waaye buy kasra bi nasab gi la huutu moom la ibnu malik di wax ne wa ma lu xam ne xat jumia jamoo les na ko bi taa in ci taa wa alifin ak liif masida teen kasra fil jarri ci jar wa nasab ma andul mi ndiw yaan niyaabatan hanil fatati bu nasab kasra gi fata la wuutu mm-hmm. wa rubbama nusiba bil fathati mm-hmm. in kaana mahdufan laam mm-hmm. jamono muannas saalim su fekkee baat bi nga ko def da ngaa gi door a indi alif ak taa dañ ko de nasabe fata ni ngi baatu luga luga wula woon ñaar sa waaw kii laamam baat bi di wax lugatu nga bëgg jamono muannas saalim mën nga delloo si waaw gi xëy na nga ne lugawaat waaye da nga far wéyale asab kon da ko mën a nasabe fata masala nga sami'tu lugatahum wa yow sami'tu lugatihim ah dama dangay dem falamma jalaha bil iyami tahayyasat subatan alayha dilluha waktiabuha falamma jalaha ba mu leen génnee bil iyami ci sëxat ba mu sëxatalee ba dàq yëmb yi taxaya sat ñu booru hmm. subaatan dunuñ de mbooloo hmm. alayha nekk na ci ñoom dilluha hmm. seen toroxaale wakti abuha ak seen njàqal subaatan jamono muannas salim la ndax lii gi taag yëpp ndax la waaye xasab gañ xasab laam ak baat bi delloo ci wuñu ko moo tax bi ñuy nasab lañ ko defal baat bi soo ko muy jamoo lii bëgg taa mujj ja mm-hmm. waaye duut ñaari yaa di xaraf mi ndollal mm-hmm. moom la lay jàngal ne fa in kaanat attaaw asliyatan mm-hmm. su fekkee liif ak taa mu ci mujj gaa mm. waaye liif gi rek mooy ndollal mm. taa gi ci cosaani baat bi la bokk mm. ni ki abiyaat jamoo baytin la taa mooy laam ak baat bi liif rek lañu dolli donte liif ak taa mu ci mujj ak lu mel ni am waat jamoo maytin la xam nga liif rek lañu dolli taa mooy laam ak baat bi lu mel ni jamoo taksir la yaa ngi koy nasabee fata jàng ahyaa an wa am waatan am waatan dégg nga mm-hmm. awil wala liif kay mooy lañ mm-hmm. ni ki xudaatun taagi mm-hmm. rek lañ dolli waaye bi laamag baat bi la fi wuutoo baat bi xudayatu la woon bu loolu kon fan nasbu bil fathaati raayatu xudaatanoo doolan ngay wax xudaatan ngay wax dégg nga ah non wama lu xam ne xat jumia jamoo des na ko bi tayin ci taa liif mm-hmm. yu kasaru des na ko kasra mm-hmm. fil jarri ci jar wa fi nasbi ak ci nasab mm-hmm. maa ñu mu ndiway ànd barab yi mu dëkk mooy yooyu lisim bu am taa su mayee baadin ci setti ak ko am alif taanisil maqsuura ak baatu dirham bu ñu tasxiir ak ko am xamsatul wad maddi ak xan la mi jigéen ak sifa lu amul xel ci mm-hmm. yooyu la xiyaasu mm-hmm. mooy la imaamu Saatibi wax ne mm-hmm. waqisu fi zitta wa nahwi zikra wa dirhamin musaxarin wa sahra wa zaynabin wa asfi xayrin aqili wa xayru daa musallamun li naaqili kasaanaka noonu ulaatu mm-hmm. dafa yéegi joon waa na si salim mm-hmm. moom itam yukk saru mm-hmm. fil jarri wa fi nasbi ma wawa ismu jame saatin bi maanaa saahiba di fi mu jamono ci saatu bi maanaam saahiba qaala wax na moom borom bi taala ne wa in kunna ulaati hamlin ulaati mooy xabari kunna dañ ko wana sax kasra lañ ko defal walladi lu xam ne xat juin la defees na ko hmm. isman mu de tur hmm. baat bi dafa doon jabal mu ànd si saalim hmm. ñu toxalee ko ci do jamono waa Salim. def ko muy àllam ci mm-hmm. dara. Mm-hmm. ni ki yow mooy jëloon ak nit nga mm-hmm. ak nit la. wala ab nga tuddee ko ko. mu de ko misaal ni ki Adriaat. jamono waa na Salim la woon ci cosaan. ñu tuddee barab. wala Arafat. mu ne saa ya rabbi. ko bila nag was ko fii ci moom. mën naa ci xeegi. nga de ko nasabee kasra. di ko jaree kasra. di ko defal tanwiin bu loola hmm. wa minhum ma yatruku tanwinahu hmm. xam ne ci wakkati ñoo xam ne dañ ko nasabe kasra hmm. dare kasra waaye <laughs> duñ ko defal tanwin day naan asrihaati harafaati <coughs> wa minhum nekk na ci ñoom mm-hmm. man koo xam ne yon ribu mm-hmm. ñaaraba maa la yan sarib am na ñoo xam dañ ko jàppee mu li fi budul soppeeku mm-hmm. ñu de ko nasabee fata di ko jaree fata ñu ne àllam ak taanis moo ko tee soppeeku wuru wi salam na bir aw ji yi caana bi ak